sëñ bi man maa ñëw fii ziar si ko si gàmmu gi mu woo ma wax ma ni ma man de am na bëgg-bëgg boo xam ni maa ngi koy yëkkati te dara taxul ma koy def lu dul lislaam lu dul yoon wi mooy dox sa digganteeg président Ablaye wàdd ba jàmm ñëw seen diggante li ma kat xam naa seen diggante fu mu àgg rek sëñ Saliou àggale na ko fa ma ne ko Mbàkke noonu la demee lu fort la sëñ Muntaxa ne ma loolu moo tax danaa yónnee sëñ Isaaxa mu ñëw xam naa sa diggante ak sëñ Isaaxa xam naa diggante président Ablaye Wade ak sëñ Isaaxa mu ñëw dox si ko sëñ Isaaxa bi mu ñëwee dakaar woo na ma ba ma woowee ni ma mi ngi dem si président Wade su ñëwee dana ma su fa jógee daanu gisee ba mu demee si président Ablaye Wade mu waxtaan ak moom président Abdoulaye nekk man de ndigalu sëñ bi dama koy jëfe si saa si rawatina ma dikkee sama rakk la sama xarit la ne que damay waxanteek moom léegi woo ko sa kanam ba nga xam ni jëfe naa ndigal la président Abdoulaye moo jël téléphone ni nan ma woo ni jox ma ko man ma ma dikke wax naa sëñ Isaaxa ni rakk jooju nga xam ni yàlla joxuma ko woon démb rakk jooj laa la jàppe tey ba fii nu toll am na nu ndigal nag ndigal li pare na jëfé ko ma ko man ma gën pare jëfé ko lool la netali sëñ bi sëñ bi rafetlu ko ñu japp bës ma dem seeti ko légui bima ko netali sëñ bi dama ko sant gërëm ko wax ni ko mbacké yag na la wax té du jamono yi doono bobu sëñ saliw mu ngi dund di doon khalif général yag na ko sëñ muntaha man de lima gis yow yalla dafa def nga doon jëm jo xamni da ngay dalal xelu talibé di seral sen xol looloo tax ma ni que bi nga ñëwee Mazaalik ak Mazaalik nu mu bindoo këru diine yëpp daje nga jubale fa président Abdoulaye Wade ak président Macky Sall ma ne que dama wax ni yow danga doon xéewal boo xam ne yàlla moo la wàcce pour nga defar jaam yi teg leen si yoonu gëm yàlla si yoonu bëgg sëñ Touba liggéeyal sëñ Touba sëñ bi aussi ni ma moom mi ngi sant ndax lii bëgg-bëggam la te daara si àddina taxul mu def ko lu dul loo xam ni xam na ni. manul ñak ndax sama ak président Ablaye Wade ñaari julit lañu ñaari xarit lañu won waye nak aussi di ñaari talibé yo xamni ni Touba bolé na leen li la wax sëriñ bi ma ngi fay soga yëkëti sama cadeau ba mu batei ba tey maa ngi tambalé kende sëñ bi sa gamu ko kenn dégguma ma wax korok bima joté séti seeti sëñ jot président Ablaye Wade kenn dégguma wax ba aussi dama non tank ñu ci mom ba netali ko ba pare gërëm ka sant ka sama kàddu du jib dama leen di fàttali ni sëñ bi daf ma wax ni ma dara si politique defu ma àgg na sax ni ma man àddina dara ñoruma si lu dul jaamu yàlla am ngërëmal sëñ Tuubaa kon man dara si politique taxul ma def ko moo tax ba ma fay dem man képp ma jël sama oto dawal ko ànduma kenn ma dem seeti ko ba ma dem seeti ko ñu waxtaan moom si président Ablaye Wade bi ma jotee si téléphone moo ma waxal si làmmiñu boppam si kanamu is sëñ Isaaxa ni ma kaay nu gisee te amul benn condition politique amul benn condition politique ni ko sëñ bi waxee kon dara si politique doxul sama diggante ak moom li dox sama diggante ak moom moo doon rakk joo xam ne dafa amoon réeroo ak magam mu dem seeti ko mu dem euh, saafoonteeg moom si ndigal loo xam ne sëñ Muntaxa moo ko jox bu leen fàtte ni maa ngi yëngatu si biir la grande alliance ñu bokk kaak Idrissa bokk ak Malick Gakou bokk ak Cheikh Adjibou Soumaré bokk ak Pape Diop ak Issa Sall te la grande alliance boobu ña fa nekk yëpp ay nit ñoo xam ni Sénégal rek a leen ñor ak njëriñu Sénégal loolu tax ñu daje bu leen fàtte ni gannaaw élection yi si sama coobare man maa fexe ba dajale candidats yëpp ñu tudde woon les quatre candidats donc loolu yëpp ay pexe la yoo xam ni maa ngi koy def pour fexe ñu ànd di diisoo pour njëriñu réew mi. man maa ngi si tànk yooyu loolu mooy sama tànk te loolu lay dëggal xam nga mbiru Njaañ nee na tey mënoon nañ ko saafara su fekkoon ni jëfee nañu man li ma leen wax ndax kat président Macky Sall su ko yàlla mayee ndam teew waroon na seet ñun projet de société yi nu joxe lan moo si amal njariñ Sénégal mu appliqué ko man sax gis naa yoo xam ne doon naa ko wax si projet de société gis naa ni ñu ngi koy appliqué dégg naa moom mu wax ni dana ko jëfee waye Mirum, mbirum taxawal ben ministère bu reuy bo xam day dox ci mbirum diine wala ben haut conseil chargé des affaires du culte bo xam ne mbirum diine lay dox loolu suñ ko defone tay du am réeroo waaw conseil du culte au conseil oui au conseil chargé des affaires religieuses ni ko Idrissa waxone man ministère la bëggoon ndax ministère bi lima bëgg moo doon du yam rek ci xol ak ñom nan lañu war jangale xam nga bes bine ne nga deg rero bu am diggante nguur gi nga xam dafa bëgg jëfé yoon ak maître coranique yi su fekkee ni man layol na ba tay maître coranique mas japp rek mala daan ndax boba dem ci seigne saliw wala ñu dem ci seigne basiru mu seigne fallu mu yabal len ci man layol na len ba tay mo tax ma xamone ni il faut nécessairement nguur gi di waxtaan ak ñom nguur gi di len yee si doxalinu àddina ak lan moo war si doxalinu àddina yooyu yëpp suñ ko defee kon doonunu am benn jafe-jafe kon tey eh, eh, réero bi ndax ñooñu kat mën naa waat ni li ko nit ñi di tudde doonu lool de bi ma nekkee avocat danaa xam ne nekkul ñoo xam ni danoo soxale xaleel déedéet nekkul ñoo xam dañu bëgg jël xaleel di ko def jaam déedéet dañu doon ñoo xam ni yaakaar na ni xale bi lii lan koy def mu mu barkeel alxuraan ji mu barkeel ko ëllëg mu mën ka jariñoo